jaa ngeen jëf les xale baa ngi ni toog Omaro président mouvement bakkan lay laaj mouvement bu mag bi association bu mag bi la képp koo xam ne danga am sa nit ku baax ku la yàlla booleel nga bëgg ko moo xam jabar la moo xam jëkkër la moo xam far la moo xam gel la moo xam papa la moo xam yaay la moo xam xarit la ànd bi ànd dëggu ci sa diggante ak moom ba mu jaral la joxe bakkan ñëwal bokk ci mouvement bi nag bakkan lay laaj tey nag damay joxe bakkan wu yespect tey tey vingt heures incha allahu rabbi en exclusivité na ma ñëpp xaar na ma ñëpp xaar en direct vingt heures en exclusivité ma wax leen kenn lay jox bakkan tey bakkan bu yees fekk jël ci moom ay engagement ku ko laal laal ma ku ko bëgg a rey di ma lekk ba ma rees nga doog koy rey vingt heures w o